si nga xam nag mooy équipe nationale du Sénégal ak ki di Kalidou Rock Koulibaly mi wax ci nga xam nag mooy donc gaynde ak Sadio Mané absence am ak ndaw yi mu wax nañ dañoo wara jël seen responsabilité loolu lañu ñuy loolu nak jëm ci tay jakarlo bi nga xam nak ñom ñoom gannaaw ba ñu tàggatoo gaynde yi amal nañ ko ak taskatu xibaar yi fa nekkon mais d'abord ñi nga xam mooy les Black Stars du Ghana ñom nak gars yi ah ñu costume dalu luñu lenn seen tenue traditionnelle lañu sol dem fa nga xam ne nag donc ci Qatar woné fa seen bop les Ghanéens les Black Stars du Ghana nga xam ne nga xam ne gars yi nañ ci 5 représentants yi nga xam ne nag ñoom ñooy Afrique fofu nonu ci coupe du monde ca Qatar les coéquipiers donc de André ak Jordan

ndax tey boo gisee ni Égypte def ay euh, euh, Belgique Sénégal fi Égypte def ko nar d'accord sul noonu mooy loolu pendant ce ah, ne a euh, nañ mais moom entraîné wul waaye mi ngi doon nekkoon salle di defaru Lionel Messi mi nag bëgguñu mu am benn gaañu gaañu mu daw parce que Argentine jamono ji seen joueurs yu bëri yóbbu nañ leen mais dañoo am ñu ci gaañu ba am na kenn koo xam ne forfait na te gars yi amaana sax ñeneen dinañ am yeneen forfait ñii nag ñooy meilleur buteur nga xam ne actuellement ñoo nekk ca coupe du monde ba bokk na si kii di Manuel Neuer hein, plutôt euh, Müller hein, ak Suarez Ronaldo Kane Neymar Messi Perisic Lukaku Cavani Mbappé Nidal, daal ñooy meilleurs buteurs yi nga xam ne ren dinañ bopp coupe du monde bi en espérant que nous am une révélation ki nga gis na di Javier Tebas mooy président de la Liga en Espagne moom nee Super League bi waa ay Real Madrid ak waa Juventus di wax ak waa Barça ne dañoo yab nit ñi loolu affaire escroc la loolu warta am noonu amul sens Ligue des champions du fi nek ñu tegaat benen ñi nga xamné nak ñoy laccé ci Qatar yenn star lañu footballé stade yaangi ngi huit stade la stade bu nekk gis ngeen ci nataal gi nii ñaata supporter lay jël anus ben stade bo xam gaay ñom liñ ko defaree moy li nga xam moy ay conteneur lañ ko defaree bobu tamit bokku na ci stade bi xamné dañ koy daal di maye pendant ce temps ki nga moy donc ki ngeen di gis ni ah, di Ousseynou Ba nekk xaritu kii di donc euh, Pape Abou Cissé mom actuellement nak Nantes lañ né mom moko bëgg a jënd le défenseur de Olympiakos nek joueur bo xamné gaay aussi malheureusement fi mu commencé moonte la moon blessure mais un véritable gaynde ki nga xam ne nag mooy donc Edouard Ndiol Koumba Mio Dogore Mendy rend hommage ki di Sadio Kaiser magnifique Mané ne mon frère wio oh, we are all with you mu ne ko nous sommes tous avec toi euh, parce que dafa daal di am gaañu gaañu Sadio Mané boobu sax gars yi la ñuy wax parce que xam ngeen ko c'est le métronome du jeu de l'équipe nationale du Sénégal moom mooy xolu équipe nationale du Sénégal euh, ci en tout cas li ñu wane woon ci coupe d'Afrique beeg ci jongante xaritoo yooyu yëpp yëpp gars yi fi mu ne nii nag tax na ba euh, ñoom si ni nii seen wax la ñu war a wax Kalidou Koulibaly nag am na àddugum ci àddu jëm ci booy yi moom Koulibaly lan la ci wax nee na joueurs yi nga xam ne nag ñooy xale yi ñoo war a wane wane seen bopp te bu waxee loolu xel du dem ci kenn ku dul Iliman Gaynde Ndiaye ah Gaynde jàpp lay bu fekkee né Aliou Cissé El Tactico day wéy di nekk El Tactico wala mu nekk Bounama Rasta parce que aujourd'hui tout dépend de Aliou Cissé lan lay teg parce que aujourd'hui il faut montrer comme niko ñom ñoom Espagne yooyu def jox boy sen chance bokku na ci ki nga xamné aussi moy Ahmadou Bamba Dieng mu tudé ko Bamba Deng Dieng bi nga xamné c'est un serial killer qui véritable neuf la au moins minimum minimum mën jouer neuf de soutien nekk na lo xamné aussi ñi ngi koy xaar Koulibaly Koulibaly nag nee na booy ñoo war wala mën a wane seen ak Pape Matar sar ki nga xamné ne gars yi nag coup franc boo ko da koy dugal c'est un bon milieu de terrain ñi la Aliou Cissé war jox sen preuve gars yi joxe leen seen xalaat nag wéy leen di like wéy leen abonné on avance ensemble dans la magie de Sport TV jaa ngeen jëf